bu fekkonte ne woon ne jàpp nga ni am na lu ñu war a changer ci réew mi lan lay doon. li ñu war a changer ci réew mi bari na de boo ko doon lim du jeex. limal ma si ñett. discipline bi am ci réew mi war nañu ko xoolaat sensé jéem a ko sensé di jëkk yi nit ñi ñu sensé ko parce que da ngay dawal oto rek ñuy tuur ndox si mbedd yi ñi nga xamante dañuy dawal di xoos oto jàmbur yi <laughs> ñi nga xamante ne lu leen neex la ñuy def hmm? en tout cas li war a sensé bari xam naa ñii daal am nañu so nar nañoo sonn parce que réew mi moom moom la ko doon nett ba la doon wax ne maanaam bu ma ko jëloon tey war a sensé réew mi eh. maanaam cinquante dinaa ko toog pour xool maanaam ñi nga xamante ni tey ñooy ñin wërta kii ñëpp ñu sanctionné leen pour mën a sensé gis nga réew tant tànk sanction amut réew mi du am faw ñuy sanctionné faw ñuy sanctionné pour mën a defar gis nga nit li mu gën a ragal si àddina mooy alalam hmm. nañuy sanctionné nit ñi ci seen alal di ko dugal ci askan foo xam ñëpp ko bokk bu ko defee bu yàgg réew mi jaar yoon. Mhm, mhm. tey mën nga dangu yow kuy dawal sa oto jaar sens interdit. Mhm. ñu jàpp la fay loolu six mille francs bu subaa nga defaat ko. mën nga daw ci kaw tali def benn infraction boo xamante ni 3000 ngay fay bu subaa nga defaat ko dañoo war a tàmbale infraction cinquante mille francs CFA. on a am na ñoo xamante ni jëm 200000. <laughs> te luñ la luñ dagg yóbbu ko directement ci li nga xamante ni mooy keesu nguur gi mu defar li nga xamante ni mooy dëkk bi. tey boo demee Dubaï amul police Dubaï amul ay police yu taxaw si mbedd yi. Mhm. parce que lépp caméra la. Mhm. heure boo defee sanction mu fekk la sa bureau sa kër boo demee États-Unis boo demee Canada boo demee Europe foo man di dem lan lay sanctionné automatiquement day ñëw. Mhm. numéro oto bu nekk sa tur moo sa nekk. boo defee sanction ñu foto la. jël si la jël la yu bind la ko. boo fayul ñu jël sa oto gaare bu nga ko defee maanaam fukk yoon man Cheikh Abdou Bara Dolly bu ma dee dawal oto aw ma bu ma sanctionné ni ma fayal 500000 dinaa ko fay boo ko fayee benn ñaar ñett mu wuti kayit. Hmm. noonu noonu la ñuy la ñuy tabax réew. macha allah alors. waaye nag réew moo xamante ni premier ministre oto bi muy dawal amul amul plaque. <laughs> réew moom du jaar yow. ah daan premier ministre bi daw oto bu amul. ah waaw Ousmane bu mu bu mu yoroon indi ko Cices oto boobu amul plaque. nga ni ma waaw. waa loolu nag du yoon de. du yoon de. ka nga xamante ni moo war a doxal yoon moo war a wane. lu ah, man gis naa gis ba ma gisatee woo naa ko waaye jotuma ko. dama ko bëggoon wax. man a ko liggéey ko bari na de. waaw parce que lii moom sa kanam la benn yoon bi laa ko jotuma ko de. ah yaa ngi wax léegi ba gisee oto bi moom nga ko jotoo waaw mais heure boobu tamit wax jot waaye bul ne li nga koy wax bari na man ñaar yoon daal nga dégg wax la ko waaye su ñëwee yàlla ak yow tamit <laughs> da da xam maa ngay wala mi ngi may woo nga bëgg a siise loo xam ne xamoo si dara. alors que da nga ne bi nga gisee oto bi woo nga ko jotoo waaw nga nga ko sama kanam fii jotoo nga ne mi ngi bëgg a bari. mu ngi bëgg mais heure bii nii def émission est que bu ma la woon naa la jot téléphone.